lu ñaw te doy waar la ñu ko fële si marché HLM modi ñaari goor jigen yu ñu bett ñuy sim seen marinaay te nak nonu mbolo mu takku daal di jóge ñu daal leen di japp daal leen di jital ñu si ko ben waju xess lool xamu ñu ba xam tubab la wala nar. lu si mënti am enquête ba nak tabina polisi ndax police nationale daal na ci duggal loxom ñu nemmeeku ba tey sonnu nañu lool ndax askan ba ñi di dóor ñi di saga ñi di kong tay def yeuf mbir ma nak daal di metti lool ci ñom mu doon phénomène bi nga xamanteni mo ngay commencé di wala sax di bëri fii si askanu Sénégal mu doon phénomène bu dee waar war na see am waru si am lan moo doonoon sabab ba ñan ñoo nekk si seen ginnaaw loolu dara du leen si ëmp si site bi mag boobee di EDB TV wooy leen di abonné tey partagé ci EDB TV international jërë ngeen jëf